ayni rahmati alhamdulillahi jaziilin la xuruji ma hiya ayni rahmati jóg naa di jéema fas way ca ndox ma soññee ko war asalaamaaleykum mbokki taalibe yi mbokki waa man Moustapha Dieng di jiite Maawu Rahmati bi ñu sante suñu borom julliti Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fedd suñu yaakaar sëñ Touba tey ëllëg nuyu Serigne Mountakha Mbacké xalifa des Mourides ñaan yàlla yokk fanam naal yi mu yor yëpp ànd koog ñu ko seqal ñëpp yàlla na ko yeggale ànd ko waa kër sëñ Tuubaa yëpp gannaaw loolu damay wax rek ne jot naa ndigal ci sëñ Muntaxa ne liggéey bi ñu doon def fële maaw Maodo ma dinañ ko continuer loolu moo tax may woo ñëpp ñu fa nekkoon di fa liggéey que bu subaa kenn ku ne na xëy ci post ba nga nekkoon nu ànd liggéeyal Sëñ Tuubaa njëriñal population bi yëpp loolu daal mooy kàddu yi nga xam ne bëggoon naa ko wax ci sama mbokki taalibe yi nga xëy ñoo bokk nekk fa la ci Maawu Rahmati que bu subaa kenn ku ne fa nga nekkoon na nga fa xëy ñu continuer liggéey bi nga xam ne ñun ñëpp dañ ko def ci ndigalal Sëñ Muntaxa Basiru Mbàkke di liggéeyal Sëriñ Tuubaa ñi ngi sant ñëpp wasalaam jóg naa di jee fas way ca ndox ma soññee ko war ma mooy maamu raxma ay ni raxmati alxamdulillaahi jasiili ni'mati la xuruuji ma ay ni raxmati